asalaamaaleykum maa lay nuyu. Ah, maa lay dama gis ngay nga def si ngay def sa vidéo di expliquer loolu li nga doon wax mën nga wax ci olof. dëgg la may wax ma terminer kii li li may ñaan sénégalais yi mooy ñu gën koo jox bopp xam ne ndaw boo xamante ne bu gënee màgg dina gën a mën a taxawal Sénégal déjà mi ngi si lancé bi jërëjëf. waaw. xam boo xam loo xamante ni ñiy def nekk ci live surtout ñoo koy gën a laajte tout le temps euh, Bart bi ñu pourquoi lu tax Bart Bart comme lu tax Bart comme tête de liste. Ah, comme Bon, je vais, je vais faire juste je pense que feeling la ci parti nekk ci Barthélémy Dias nekk tête de liste feeling la déjà am na lu mu yokkal euh, euh, liste euh, kii bi nu mu tudd lu mu yokkal liste bi parce que le fait que Barth nekk tête de liste je pense que c'est une bonne chose te ku ko xam aussi mooy borom Dakar ru fit bi ak kii bi daal feeling bi ak yooyu. comme comme ñu war leen a voter Ziguinchor Bignona loolu lan nga leen di wax waa Ziguinchor. déjà di rappeler ni que Ziguinchor du titre foncier wu kenn sénégalais yëpp moom Ziguinchor du titre foncier Ousmane Sonko du titre foncier euh, Guy Marius Sagna Sénégal ñëpp ko moom donc di ñaan waa Ziguinchor ñu dooleel coalition Sàmm Sa Kàddu votel que jox ko majorité bi wax Ziguinchor ngir mu remporter le nombre de sièges bi nekk foofu merci beaucoup. alors sànq maa ngi dégg naan Batt borom ndakaaru euh, ñenn ñu ne Ousmane s moom moo ko teg ci maire bi est ñooñu ma ñuy wax pour wax rek ñiy wax pour wax rek ñooy wax loolu mais Barth moom ku ko xam xam ne Dakaaru la dëkk te aussi moom mooy borom Dakar parce que bu muy xeexal Dakar di taxawal Dakar boobu ñi si bëri nii xëy na seen dëkk gox yi lañ taloon ak seen dëkk yi ñu leen koy nangul tamit mais du ñu ñëw ba instant bi ñuy naan Barth du borom Dakar keneen mooy borom Dakar Barthélémy Dias effectivement instant bi ñu toll moom mooy borom Dakar on sait tu penses que mën na relever défi bi Barthélémy Dias. mën na ko relever si bu ko askan bi jàppalee voté kat xam nga dañoo nekk ci contexte boo xam ne dafa xaw a nakari mais bu fekkee askan bi liggéeykat rek lañ taan gëm naa ne Barthélémy Dias la ñuy taan bu dee waxkat nag lañ bëgg ñu ànd ak yaa seen njaboot. vous pensez que en si peu de temps sénégalais yi mën nañ changer avis. lu mën a nekk la parce que am na ñoo xamante ne dañoo voté woon juste pour li fi nekkoon jóge fii mais pas parce que dañoo ànd ak ñi fi nekk donc euh, am nañ ci yaakaar bu baax a baax te ñoo ngi leen di ñaan cette fois ci ñu def le bon choix et le bon choix c'est la coalition Sàmm Sa Kàddu merci. voilà dañuy continuer jël def euh, li nga xamante ni moom mooy réaction euh, yi voilà jéem a jël li nga xamante ni moom mooy. réaction yi jël euh, ambiance bi également ambiance bi ambiance bi nga xamante ni moom moo fi nekk. kon kon euh, seen euh, Teranga TV. waaw Lamine Diack ñu ñëwagul mais salle baa ngi fees dell. voilà ñu continuer réaction yi voilà mbokk internet waaw. waaw mbokk internet yu Sen Teranga TV dañu continuer ba léegi réaction yi. papa maa lay ziar ah c'est bon. yaa ngi booy maa lay ziar. maa ngi dellu xëjal ma xëjal ma kol bi tuuti maa lay ziar. waaw ma bàyyi la nga xëcc col bi tuuti waaw c'est bon waaw baax na voilà c'est bon voilà c'est maa ngi lay ziar yaay. maa ngi dellu ziar bu baax. yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm. si leader yi kan moo si indi. leader yi kan moo si indi. ah sunu monsieur le maire député Babacar Mbengue moo fi indi. baax baax bëgga ñu bëgga yaraax Babacar Mbengue mooy ki bëgg a yaraax Babacar Mbengue moo bëgg a ànd moo tax mbooloo mu ñëpp ànd ak moom ñëw ndax Babacar wax dëgg yàlla dara desul dara desul lu nekk lay def ci ànd be lu nekk social ah mi ngi ci école bi mi ngi ci dispensaire yi waaw li ma la bëgg laaj mooy euh, xëccoo bi war a am ci diggante Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko est-ce que jàpp nga ne Barthélémy Dias mën na am dara ci kanam Ousmane Sonko. waaw waaw ndax Barthélémy Dias day liggéey kooku mooy jàmbaar fàkk tëdd mooy gaynde Njaay ndax Barthélémy lu mu ne la lii laay def rek loolu lay def te li mu def jëpp a gis nañ ko fii ba Touba camion yi day dem camion ndox yi lépp a dem Barthélémy Dias nekk ci Dakar gi def fi lu mu ci ayib la nga xam ni kenn def ko fi. président sax danga doon wax moo ko fi def mais dañ naan Barth moo ko fi def kon nag Barthélémy Dias ñaan nañu yàlla mu jël mu mu mu baatale campagne bi loolu la ñuy ñaan. kanam Ousmane Sonko loolu mën na nekk. kanam Ousmane Sonko ak Jomaay si kan seen kanam dañuy ñaan yàlla mu gañe ko parce que nit ñi dañu juumoon xale yeeg ñëpp dañu juumoon waaw. mais yaa ba yow da ngaa découragé nii da ngaa découragé. mooy lépp lu fi diggee woon. sanu doom yiy dee sanu doom yii dee ñu leen di tëj yëpp at li fu digee woon defu fi dara defu fi dara léegi nag xale yi danoo juum il faut ñu dee retiré wu xoolaat seen bopp dellu si Barthélémy Dias ak kii bi euh, coalition bi waa coalition bi ku leen topp dina la jëme ci kanam waaw. d'accord merci beaucoup. merci donc beaucoup. <laughs> voilà ah, dañuy continuer ah, jël réaction Ousmane wala ñu. Euh, dellu fa ñu nekkoon wala ñu ko néewal xëy fi mooy gën a feex euh, mbokk internet euh, Sen Teranga TV voilà nag di wax ni rek ñu ngi ci biir ah donc c'est un peu compliqué ndax dafa xaw a xat mais dinañ ko dinañ ko jéem a dinañ ko jéem a gérer parce que voilà ñu jéem a jël li nga xamante ni moom mooy réaction ñi nga xamante mooy euh, suñu grand malaise. yàlla yàlla nangu. yaa ngi direct Sen Teranga ah d' accord merci beaucoup. alors ndax gisee woote bi sinon événement bi lancement bi. waaw parce que xam nga ñu ñu woote. c' la grande coalition. la coalition gagnante. bon pratiquement ñun avec euh, directrice su campagne bi. rawatina honorable Lalla ay Fall moom moo gën a yokk tax tax ñu ñëw fi teew parce que wax dëgg yàlla xam na fu mu teg tànkam te xam na ñu mu jëli jëlul dara de. <laughs> alors est-ce que vous pensez que ni euh, coalition bi mën na mën na faire face ak Ousmane Sonko. ah mais euh, mais nit kooku ngay tudd sax mais nit la rek de te xam naa ci ñu bari ñoo xam ne ñu ngi commencé teggi tànk. ah bon ah, ñu bari ñoo xam ne ñu ngi commencé teggi tànk laa la wax ak ñoom parce que euh, ñoom daal ñooy la te wax dëgg yàlla waxuma la tax opposition bi yëpp waaye la grande coalition la coalition gagnante rek war na mën a jàkkaarloo ak moom ndax lan te leen jiite. xel la rek Barthélemy ku ko dégg xam ni booy taawoon la ragalul te mësul ragal loolu moom am na moom. moo koy gagné est-ce que fit rek moo koy non mais waaw dévouement boobu ci la nag ba pare rawatina nag euh, ñi mu àndal dañ ko gëm xam nga élection moom la wax euh, boo bëggee dem di def euh, politique te too ñemewul bul dem su dee da nga gis sa intérêt personnel bul dem bu dee amoo ci conviction bul dem. lépp nag te ñu mu ànd ak ñëpp dañoo am conviction ngëm-ngëm moo leen fi mais du ko pour ñëw pour def politique politicien franchement pardon. mais mais Ousmane Sonko ak Barth fi ñu mujjee nii pour yow kan moo kan moo indi divorce non divorce bi parce que ñëpp xamoon nañ ni sa waay tural moom kese la franchement parlant du dem parce que soo xoolee nga delluwaat ginnaaw tuuti Barth ka may fit gi Barth moo ko may fit gi ba booy amoon ci espoir topp ci nit ñi dañuy fàtte lool Barth moo ko mosoon a jiital nag franchement parlant moo ko may fit bi yëpp moo ko may. mais am na ñu ni Ousmane Sonko moo ko jox maire bi parce que moo ñëw campagne ko ba mu jël maire. non non parce que euh, bi noonu ñëpp xam nañ ni yi instant boobu gisuñu woon dara même tey jii man mii la personne nga xam ne jot du ma dara boo ma tegoon sax damay gañe ndax nga ngëmu nit ñi la woon noonu lañu ñu defoon jamonoy euh, Abdou Diouf ak Ablaye noonu la ñu defoon jamonoy Abdou Diouf Ablaye Wade noonu la ñu defoon Ablaye Wade Macky Sall ñoom daal bu ñu sénégalais mel noonu bu xasee ba pare ci yow doyal rek allez hop. est-ce que est-ce que vous pensez dañu doyal c'est pas trop tôt de le dire. non non parce que ci man dama gis sama gis-gis parce que booy ñu jotoon a waxal franchement parlant ñëpp te ngëm dafa am ay analphabètes yoo xam ne xamuñu parce que promesse yi la ñoom dañoo jàppoon ni. le 4 avril boobu suñu leen falee rek ci ëllëg sa rek léppay sotti parce que booy loolu la ñu gëm loolu loolu la ñu gëm loo mën naa ceci mën naa cela dinaa def lii def nii léegi nag les analphabètes dañuy yaakaar ni rek que ni en une journée rek lépp mën na sotti te kër sax kenn du ko yore noonu looloo tax lu mu leen gëm loo woon nag booy gisuñu ko looloo andi problème bi. Ousmane Sonko lancé na cagnotte. lancé na ko c'est pas osé. si euh, soo gisee mën na lancé na cagnotte day leeral nit ñi rek parce que fii tout certes d'accord lancé na cagnotte mais am na ay priorité comme ni ñu ko waxee man en amant citoyen sénégalais si c'était mois élection tax du am en ce moment là ndax lan waa Bakel yi ndax lan am na tamit luy feeñ côté Saint-Louis te loolu yëpp war na mën a ñëw bërki dee moo Ndiaye Touba loolu yëpp am na wax dëgg yàlla toon man la élection tax du am dama koy tege de côté bay ndax damay lancé cagnotte di ñëw xam nga ni cagnotte bi lu mu ko lancé lancé mu ñëw aussi peut-être que 1000 francs 1000 cinquante mille cent mille ainsi de suite waxin la rek loolu yorul seen campagne parce que pour savoir que bu ëllëgee mi ne campagne wul lii xaalisu kii yor na ci na ci nit ñi meloon bien avant muy falu je ne crois mu doon lii après yaakaaruma ko